jërëjëf mbokk yi ñu seetaan mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziyaare di leen ñaanal jàmm di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak ñaan gi Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalif général kul murit di ñaan suñu borom yàggal ko fi loolu tam ànd ko wér di ko ñaanal mboolem seexi sëriñ tubaa xaadim rasool yi ak njabootu sëriñ tubaa gépp bàyyiwuñ kenn di ko ñaanal sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Modou Mbend moom maam Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu Cheikh Ibra gépp bàyyiwuñ kenn di ndokkeel mboolem murit yépp ak Baay Faal yépp ci bis bi ñu génn muy bisub 24 heures ci Kurla di ñaan lépp lu ñu fa tudd suñ boroom yàlla nañ ko suñ suñu borom defal ay xéewal mu saawaan baawaan yàggal fi suñu ñaari kilifa yi muy Cheikh Mouhamadul Mountakha ak sëriñ am def Modou Mbenda ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi ak Cheikh ak mboolem njabootu seex sëñ Tuubaa di ñaan ci réew mi ñu nekk muy réewum senegal di fi ñaan jàmm di ñaanal ñi jiite réew mi ñoom it yàlla may leen jàmm di sant yàlla bi ñu desuwaate ak yéen ci seen émission bi muy am ci seen site bu mag bi ñu tuddee Saxum Touba l'officiel maa ngi jàkkaarloo ci wàllu kamera bi sëriñ Alassane saane mu feggoo ak sëriñ Omar Sall di nuyu baax a baax mbokk yi nga xamante ne dañuy topp ci émission bi di ci jiital sëriñ Dambay itali nga xamante ni saa yu ñu defee ab waxtaan da ciy def indi ay jàngat ca jàngat yooyu dañ dañ ci jële ay jàngataat ñuy tamit di nuyu tamit euh, sëriñ Sonia bu Meng maa ngi njaay jàmm ñaan maa ngi ko baax a baax di ko siyaare ni ñu ko wala fi doxee lëmb na réew mi mm, mën nañ koo tudde coow mën nañ ko tudde eh, actualité mën nañ ko tudde loo xam ne li wala fi di wax ni lu def waxu lu ay di njàmbat loolu mooy lan xam ngeen fan yi gis nañ ci vidéo yi xam naa loolu dañuy leeral ni jamono moo sensé rek waaye amoon na ci ay dëkk yu mu amoon te kenn mosu koo dégg mosu am benn jafe-jafe waaye nag léegi dafa jamono ji dafa sensé ba xëy na yu bare yu nëbbu woon day day feeñ te bu feeñee day xaw a doy ci dangay indi aada ak diine te xam nga ni loolu du diine nangu du lislaam nangu muy mbokk yi ci fan yi dañoo gis ci benn vidéo am ñoo xam ne dañuy wax ni ay dëkk ba dañuy bañ ko fa suul géwél xam naa ñu bari duñ xam yëf yi nu mu demee ak lan mooy cosaan li ak lu ko waral Euh, dañuy jé dañuy wax ne rek ñoom dañuy bañ dëkk seen armeel lu ko fa suul géwél loolu nag histoire bu yàgg la woon waaye nag du du du ñëpp du fépp ma leeral waa du du du ñëpp du fépp waaw waaye nag ci ci démb ak ci histoire amoon na ay dëkk yoo xam ni su fa ab géwél faatoo dañuy wax ne bu ñu ko suulee ci suuf si euh, day day du am nawet du am dañ daan am na lami guy lami guy yu mag yoo xamante ni ci lañ daan def bu ab géwél faatoo ñu dugal ko fa waaye may leeral rek du dëkk yëpp duy géwël yëpp lu ñëpp a koy def waaye amoon na man amoon naa jëwriñ yoo xam ni sama kilifa la woon ñoo bokkoon fi ñu daan liggéey loolu ma daan tooñe dama daan wax ne ma ñun suñ dëkk bu géwël bu faatu kenn du ko sóol ci armée ya dañ koy dugal ci guy ya loolu nag lu yàgg a yàgg la xam ngeen mbokk yi wax naa fii am na benn émission émission yi jiitu ma doon leeral ay cosaan ak aada yoo xamante ni bi lislaam ñëwee ak diine ak rafetal xam na ni lii aada waaye wàññiwul dara ci lislaam ci rafet na lislaam da koy accepté waaye nag dafa am yoo xamante ni nag moom lislaam du ko du ko mën a nangu diine du ko mën a nangu am xelit du ko mën a nangu waaye nag loolu amoon na waaye lii rek moo doon sabab bi ndax dañuy wax ni am na ñoo xam ni euh, am na géwél yoo xam ne boo leen bu ñu leen suuree ci seen suuf yooyu buy tawee euh, du ñu am dara ci am nawet loolu daal nañ ko def daawul daawul am benn problème géwél yi fa dëkkoon it amuñ mosuñ ci am benn jafe loolu tax boo gëstoo ci histoire am na géwél yu bari yoo xamante ni dañoo tuxoo ca dëkk yooyu dem ci yeneen dëkk ndax dañoo ndax bañoon loolu ndax am nañu ko jàppe woon ak xeebeel ak yooyu waaye jàpp leen daal lu lu yàgg la ci histoire euh, lu lu am la waaye nag du dëkk yépp ndax xam nga ñun ñun suñu réew mi ni ñuy dundee dafa am lu ñuy tuddee aada wax naa ko léegi ak lu ñu tuddee baax baax nag mooy da def dara rek mu jig la loolu moom yàgg na ci wolof maanaam def dara rek mu jig la nga ne lii dootuma ko bàyyi wala nga def dara mu jigadi la nga ne lii dootuma ko def maanaam du tënk du waxuma la nekk du waxuma ay alxuraan ak xaddiis ak yépp nekk ci dara daal maanaam ci sam xel rek ngay utiliser euh, sëñ alsaan mii kat euh, daa daa def dara mu jig ko mu ne lii dootuma ko bàyyi caméra bi mu jàkkaarloo mu marque bi di Panasonic mën na ne marque bi daal ba ma ko yoree ba léegi ni maa ngi gis ni liggéey bi mi ngi avancé du ma ko bàyyi damay damay dëkkook marque bi loolu loolu yàgg na ci yàgg na ci ñun da gis am na ñoo xamante ni mbokk yi euh, ci seeni baax euh, dañuy dañuy dañuy wax ni seen doom bu njëkk lu ñu ko defal rek ba mën nañu dem ba leen topp ba seeni sët ba fi ñu waxee yow nii dañ koy def fi ne da ngay dem ci ay ay ay ay xew ngénte ñu tudd doom ji ñu ne doom ji turu doom ji bala ñu koo wax jant bi daa son loolu moom fekk naa ko bu baree bare bu yàgg rek fekk naa ko maanaam ñu tudd doom ji imam bi tudd waaye yow géwél bi war a jottali tur bi dañuy ñëw déey la ni la ah tur bi nag du jëm kaw maanaam dañuy nëbb tur bi bañ jul timis ba pare ñu soog a wax ne doom ji diw lañ ko tuddee loolu am na am na ñu ko def ba nga ni te fii ne boo demee bu njëkkoon bu xëy na dañoo waxoon am seen maam yu ñu tuddoon rek euh, wax tur wa xëy na jigu ko ñu am koo xam ne daa ñëw ñu nëbb turam mu ko rek ñu topp aada jooju waaye du loolu loolu rek mooy baax maanaam mooy suñu baax euh, man mii di wax a yéen am na dëkk bu ñu wax xur xur ñu dëkk pekkes wala ñu dëkk kajoor xam nañ xur xur boo ci taxawee boo taxawee pekkes rek côté yënd xeen ci ginnaaw yënd xeen tuuti di nga seen ay guy dem naa ba jub ko dañuy wax ni ku sant bugg dafa fanaan sant mbuub géwél bu sant mbuub du fanaan xur loolu nag li ko waral lañ ne dafa am suñu maam dafa fanaanoon ba léegi kenn gis ko kese kenn xamul jinnee ko këf kenn xamul <laughs> gayndee ko lekk wala dara loolu doo moo ko mooy mooy mooy waral baax ba fii may wax ak yow nii amul benn géwél bu sant mbuub bu ñu mee fanaan xur am naa sama mbokk yoo xam ne sax géwél ci bari loolu la ñuy giññe bu ñu la bu ñu la bu ñu la naree wax dëgg dañu naan la ak yàlla ak yàlla naa fanaan xur bu la ku sant mbuub bu la giñalee loolu rek xamal ne li mu wax dëgg la waaw am naa bàjjen boo xam ne ba léegi moom da koy wax ñaari baat ñett bu la naree wax dëgg rek danaa la ak yàlla naa fanaan xur kon loolu suñu suñu suñu aadala boo ñëwee ci suñu kilifa yi ñu sant Mbàkke xam ngeen ni bu ñu amee am tudd bu ñu nee suba la tudd ma am na lu ñuy def ñu tuddee lan sereng ñu togg sereng sereng gi dañuy boole pepp ak ceeb ak soq ak lépp togg ko boole kooku yàpp togg ko loolu ay ay ay ay baax la am na ñuy wax ni sax xëy na bu njëkk dund moo bariwul woon waaye tamit comme ba léegi ñu ngi koy def te wàññiwu leen dara rek ñu ko leen ko def waaye ko dugal ci cadre l'islam loo ko dugal ci cadre diine ndax dina xamul lool waaye nag ay ay africain lañ ay sénégalais lañ ay kajoor kajoor lañ ay bawol bawol ay sénégalais lañ kon lii doon moo waral moo moo waral affaire yi waaye tamit am na ñoo xamante ni ba fi ma waxee yow nii bu seen doom juddoo géwél moo koy nàmpal am na lëkk yoo xamante ni ab séer bu fa wàcc loolu waxoon naa ko ci émission yi njëkk yi xam naa bu ma ko toppee sax du ma du ma du ma ma wax li ma bëgg a wax ci ci ci émission bi waaye daal jàpp leen ni ay baax la woon yoo xamante nii mag ñi ñoo ko daan topp rek di di ko def ci seen i calcul nag seeni xalaat da ngay gis ni sax léeg-léeg buy génn mu ni buy génn këram bu dajee góor lu yoon wa du neex bu dajee jigéen yoon wa day neex loolu di ñi naan daa damaa jigéene ñi naan damaa damaa góore loolu ci suñu ci ci ci ci ci ci suñu aada la bokk euh, mbokk yi tey nag dañoo ñëw ci seen émission bi ñu tuddee Sénégal démb ak tey thème bi ñu tuddee ko euh, taxawaayu mbokk ci mbokkam taxawaayu mbokk ci mbokkam waaye bala ñuy dugg ci thème boobu tamit xam ngeen émission bi léeg-léeg nit ñi dañ koy seetaan waaye dañuy yónnee di laaj yónnee ay laaj ci commentaire yi wala boo fexe ba am numéro bi yónnee ay laaj laaj bi ñu njëkk a tontu ñu ngi koy tontu kii nga xamante ni moom moo di euh, Seynabou Diop Seynabou Diop maa ngi koy nuyu baax a baax di sëtub saa moom laa doon nuyu bi may tàmbali di sëtub ki nga xamante ni moom moo di Socé Fall Daour Fall moom nee na dafa dégg nit ñi di wax la Joor saa xewar na Mbay mu dun saa xewar saa xewar Fatma xëy na loolu boo dee xool émission yu njëkk yéen waxoon nañ ko ci leeraloon nañ ko ndax. saa xew ne day bari day bari de trop pour mu leeral ko leeralaal ko mbokk yi maanaam dañu dul xam ban saa xewar moo jur Lat Joor parce que dañu naan saa xewar naan Medoune saa naan saa xewar Soxna Mbay muy ñetti saa xewar yu tegaloo saa xewar Mbay mooy bàyyi la Joor saa xewar Soxna Mbay maanaam yaayam daa tudd Soxna Mbay moom mu tudd saa xewar ñu dàkk astafurlaa waaw yaayam daa dëkk daa daa tudd Soxna Mbay ñu dàkkante la ko ci yaayam naan ko saa xewar Soxna Mbay bàyyi saaxewar soxna mbay mooy melun saaxewar moom nag melun saaxe melun la tudd ñu koy dàkkantale ci bàyyam muy saaxewar melun saaxewar moom saaxewar faal maa ko jur kon dana danga naan saaxewar soxna mbay melun saaxewar saaxewar faal ma kon loolu mooy euh, tontu bi euh, beneen laaj bi soxna ami Njaay Baara Sidi moom soxna may Darma moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fall ma waaye moom Baara Sidi moom Sidi moom Alburi histoire war na laa intéressé parce que xam nga sëñ Saane fan yi dafa am ku ñu wax Amari Ngoone arambaay Mbaay te woykat bu siiw woy ko ñu baree bari di di di ko woyantoo te xamuñu ko am na ñoo xam ne daanañ dégg géwél gi leen ci tàgg ñu bëgg xam kooku mooy kan Amari Ngoone Aram ab dammel la fàll sant dëkk Kajoor ku ñu wax Euh, bàyyam mi ngi tudd Demba Daali sa Jóob mooy bàyyam demb Daali sa Jóob moomee nag ñoxor bàyyee ko jur ñoxor bàyyi moomee nag ku ñuy wax deecaloo baasin suur a ko jur deecaloo baasin suur maa joor ma xura jukkuli maa sàmbataak ko amari ngoone sabel ma li bay kajoor ak bawal kon kooku mooy amari ngoone am ñu naan mari ngoone arambaay déedéet amari ngoone arambaay la tudd jiñaax jiñaax Dièze ma leeral ko Djignakh titre la ndoom ak tànk la ñu sant Fall ñoo ko daan falu moo tax ñu naan Amari Ngoone Aram Mbaay Djignakh Djignakh Demba Daali Maysa ma ràmbar rey ma jooja njaay ci diggante paal ak buufoo baayam moo xeexoon ak ma jooja njaay ci diggante paal ak guufoo paal ak guufoo ñu ngi fii ci ginnaaw pekkes moom it kajoor la léegi nag demba euh, demba daali moomu nag moo jur Amari Ngoone Aram Amari Ngoone Aram daa nekkoon jiñaax jiñaax waxoon naa leen tiitire kajoor yi ci jiñaax ku sant Fall ku daan falu mi ngi mel ni ci jamono ji nga naan député wala wala wala wala wala sous-préfet wala dara wax nañu sax bu doon ci jamono ji ni ngi nekk méngoo garaatub sous-préfet muy jiñaax euh, Amari Ngoone Aram moomu nag am na ay doom am na ay sët yu yu baax ci réew mi ndax moo jur ku ñu wax ma jigéen gu ma jigéen gu ñu moo jur faa daawur ma jigéen gu ñu mu jur soose faa daawur soose faa daawur nag mooy maam yi soxna sëy na mu jóom yi ma doon wax léegi cam yónnee woon question bi nekk ca Italie bokk ci groupe bu sëti Joor yi ak groupe lingeer Linguère yi ñu sëy na bu jóom moomu soose faa daawur mi mooy maamam soose moomu tamit moom lañ tuddee ki nga xamante ni mooy Socé Mbuub historien bu mag bi muy sama baay Socé Mbuub moom la ko sama maam tudde Daawur Buur Mbayaar bu mag la woon Socé Fall nag euh, Fall Daawur ma jigéen bu ñu jur ma jigéen bu ñu ma ko jur ko jur kon kooku mooy waaye nag Socé mu mag moomee nga xamante ni mooy Socé Fall Daawur Buur moo ko ñu wax Kumba Géy Fall la bokk ndey ak baay Kumba Géy Fall moomee nag moo jur ku ñuy wax Pierre Lignane Pierre Lignane moom moo jur maître Dior Diagne ñi nga xamante ni Sénégal gépp xam nañ ko kon loolu waral xëy na sax woykat bi maître Dior Diagne moom la doon woy naan ko Amari Ngoone Aram Mbaay ndax euh, Pierre Lignane mi nga xamante ni moo jur maître Dior Diagne Kumba Gay Faal mi ko jur ak soose daawar bokk ndey ak baay faa daawar ma jigéen gu ñu leen jur faa ma jigéen gu ñu ma jigéen gu ñu mi ko jur Amari Ngoone Aram ko jur Amari Amari Ngoone Aram nag wax naa leen ni mu juddoo ci faaleen gi ndax moom baayam mooy Demba Daali Maysa Jóob daal Daali may bu Jóob moomee ñoxor baay faal ñoxor baay ko jur ñoxor baay Jóob day caloo baasin suur ko jur day caloo baasin suur béjjën biram juuf juuf juuf béjjën biram jooju juuf ko jur ñoom na seen tur daa xaw xorom béjjën biram jooju juuf béjjën ak palla woon béjjën biram jooju juuf maa jor Fatim Golleñ ba tey fàddaam jigéen gu ñu parce que boo xoolee tamit fàddaam jigéen gu ñu mii xam nga euh, suñ ko sa asuloo asuloo fàddaam mi ko jur fàddaam moomu ak fàddaam yi ñoo bokk ay tur te ñoo bokk menn maam ndax fàddaam jigéen gu ñu malaam yi ñoo xot bàyyi déggéen maasaama ngàcc gànkal biram gu ñu béjjin biram jooy juuf maasaama ngàcc gànkal biram gu ñu dee calaw baasin suur béjjin biram jooy juuf damel maa kon tur yi niroo nañ waaye ñoo bokk menn maam jombu lañ ko tudde mais soxna Ami Njaay tamit ci néegu xagaan bi ngay laaj lu am solo la néegu xagaan bu njëkkoon ku fal dameel da ngay fay da ngay fal xagaan yi euh, jëwriñ bul boo fa la nekk damel xagaani ñooy nekk jëwriñ bul histoire boobu nettal wala naa la ko ci diggante Amari Ngoone Ndeela ak ki nga xamante ni moom moo di Birma Ngoone Latir loola waroon mu dem mu ñëw ci moom ni ko fal ma néegu xagaan tamit yaatu na Amin Njaay jërëjëf Njaay ci laaj yi néegu xagaan bi nga bokk yow soxna may mi sa waajur may dal ma doomi suñu sax ba gaynde fan ma soxna mbenn ko jur soxna mbenn soxna mbenn nag ak sëñ koso ak sëñ basiroo bokk ndey ak baay soxna asloo ma leen jur muy asloo fàddaam ak baara fàddaam ak abdu xaajir ak móodu ak sooda kunt ñoo ñoo bokk ndey ak baay fàddaam mi leen jur ma jigéen gu ñu ko jur ma jigéen gu ñu binta maysa maysa njaay euh, ma jigéen gu ñu binta maysa maysa njaay waaye maysa aram faxa la ñuy wax dañ naa maysa njaay muy maysa aram faxa ngoone jóob ngoone jóob moomee nag ku ñuy wax farimata jóoboo ko jur farimata jóobu ngoone yaasin na ko jur ngoone yaasin moom mu ko jur nag yaasin koo njoogu ak kura koo njoogu moomu biram yaasin boobu la seen bàyyi tudd ñooñu nag mooy maam yi ñu xagaan yépp ci ci ci ci ci ci ci ci ci Sénégal ñu baree bare xagaan yi tamit ci la kii tamit ci bokk suñ seex si la bu diwaan suñ seex suñ suñ suñ suñ ma paati si la diwaan suñ ma paati si la moo jur suñ seex si la diwaan mu jur suñ Modou Kara si la moom it noonu la juddoo ci néegub xagaan waaw ndax Farimata Gueye Farimata Gueye mii ma mii ma mii ma mii ma mii ma jur moo jur Mbengue Mbengue jur Aram Ndoye mu jur Asta Aram Ndoye Asta Aram Ndoye moo jur Serigne ma Serigne Cheikh Serigne Cheikh Sylla Diwaan mi nga xamante ni suñu parti Sylla Diwaan mi nga xamante ni moom moom Diwaan Sylla kon kooku mooy Amari Ngoone Aram Mbaay euh, semaine bi yëpp ni ñaa ngi ma koy laaj mooy kan waaye Fall la sant kon xam naa rek loolu lañ doon indi ci ki nga xamante ni mooy Amari Ngoone Aram Mbaay beneen laaj bi maa ngi ci nuyu bu baax a baax Serigne. <laughs> sëriñ Cheikh sëriñ Mbacke Abdourahman ak sëriñ Omar Kane di ay kilifa yoo xam ne damay waxtaan ak ñoom ci ak bokk ci ñi ay nit ñoo xam ne ñëpp xam ne lañ ci dëkk bi ñu ak bokk ñor leen baax a baax dañuy wax ni Aïssa ak Sadio Aïssa ak Sadio euh, ak Yaasin ñett rek lañ nag ndax dafa am ñu ci bëggoon a yokk Aminta waaye Aminta amu ci Aïssa la. ak saajo ak Yacine ñett ñi ñoo bokk ndey ak baay Aïssa ak Sadio nag siiw na Yacine la nit ñi dul waxaale ñu bari waaye Yacine moom moo jur Kani Sow Kani Sow moom lañ dénk Serigne Ibrahima Awañang Serigne Ibrahima Awañang doomi maam Mahram la mu am ci soxna Anta Ndiaye Mbacke soxna Anta Ndiaye Mbacke mooy soxna si njëkk suñ Mbacke moo Anta Sali ba mu demee moo fa taaloo soxna Faati ant kenn ci ay sëtam nee nañ moom la fa njëkk am. nee na muy muy soxna Faati Anta Njaay ak sëñ Mbàkke Anta ak maam Cheikh Anta ak sëriñ Afe Anta kon kooku mooy Yaasin Aysa moo jur mooy mooy waajuru maam Balla Aysa maam Balla Aysa mooy caatum maam Maharam mooy waajuru sëñ Mbàkke Mor Anta Sali muy waajuru ku tedd ki sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul Saajo moo jur maam Baara Saajo maam Baara Saajo maam Baara Saajo nag mooy maam ñii nekk fii Boofel wëfel gi ak yaañka ak ndilliki ak euh, caaween kooku maam Baara Sadio mooy seen maam maam Baara Sadio boo demee barabam ba dem naa fa bu yàggu rek ziyaare ji ko boo ma fa demee ku ñu wax Serigne Saliou saw baayam moo naa wattu barab ba wax na ni siñ Saliou Moustapha ñëw di siyaare si euh, Baye Saliou Sow nee na baayam ko net nee na baayam ni baayam Serigne Saliou Moustapha ñëw di siyaare si nee na baayam ni ko sëñ bi nañ ko solal dàll di ndax barab bi daa am ab dagg nee na mu daal ni ko sëñ Saliou ni ko waaw euh, waaye dañ maa xamal ni ma ku tedd ki su fi masaana ñëw du soli daal kon maam Baara Sadio ku jar di la ñu fii rek ci ci ci yaañ ko euh, maam Baara Sadio ñu baree bari la ci ci ci ci ci ci réew mi maam Baara moo jur euh, Mati Faama Ba waaw moo jur moo jur Mati Faama Mati Faama moomee moo jur mooy maam yi ñu bare. kon kooku mooy Mambaara Sadio Mambaara Sadio nag moo jur ku ñu wax Mambaara Sadio nag bala sant maanaam dañ ko dàkkantal ci yaayam muy Sadio mi Sadio kan la sant ay sa ak Sadio ak Yaasin kan lañu sant Mambaara Sadio mii nag bala sant mm, Mambaara Sadio moo jur soxna Mati Ba soxna Mati Ba nag moo jógee moo ñëw boo fel gi am ñam fa am ñëpp Mati Ba moo jur ma Masamba Mati ma Masamba Mati moo jur Musa Xujja Moussa Khoudia mooy mooy bàyyi soxna Mayka bàyyi soxna Mayka nag mooy waajuru jigéenu Moussa le maire Abdoul Ahad Ka mii nga xamante ni moo nekk ci commune bu Touba kon xëy na ñetti laaj yooyu lañ lañ lañ doon leeral bi ci des ci ci ci ci laaj yi xam nga ñu bari dañuy wax ni aala Demba Sanaba Gueye Mërgul Demba Sanaba Gueye Njuga Demba Sanaba Gueye ak Njaay Demba Sanaba Gueye waaye nag dafa am ab jigéen jigéenam booba nag ñu bari dañ ci dañ koy dañ koy dañ koy dañ koy dañ ciy réer waaye Binta dem ba gi la tudd moom jigéen boobee daa dem Kajoor am fa Ngoone Jeng Ngoone Jeng dem Lappe am fa Fatim Touré Fatim ture dem delluwaat Jolof am fa ñaari doomu jigéen Kuré Njaay ak Kumba Lawbe Njaay Kuré Njaay moo jur Maram Xàcc Maram xacc moo jur Gayo Maram Xàcc ak Lawbe Maram Xàcc Lawbe Maram Xàcc jur Xabsa Lawbe Xabsa Lawbe jur Soxna Faati Isa muy waajur maam Jërim la Faati daamal Daaru Musa ak rakkam waaye nag gayo maram xàcc moomee nag moo jur mutt fa Bombe Touré wax naa ko ci émission yu baree bare moo tawloo Moodu Matar Xaritaar mu gisee Abdou Karim Touré mu càlloo Mor Penda mu jur Sëriñ Alaaji Seex ture mutu fa moomee moo jur ku ñuy wax Penda Touré ñu jox ko ku tedd gi sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul moo am soxna Oumy Mbacke Mampana soxna Oumy Mbacke Mbacke moomee nag mi ngi Mampana doomu sëñ Tuubaa la waaye xam ngeen ni sëriñ Basiiru waajur sëñ Muntaxaa mi am na ku mbokkal ndey baa baay ku ñuy wax soxna Xari Mbacke géwél yi dañuy way ni xarima ca mbéy dañoo wax ni ku tedd kii bi mu wàccee moo ni na na nañ ko yóbbu Mbampana mu wéttali soxna Oumy Mbacke Mbampana ndax soxna Oumy ba mu nekkee fa ba léegi mi ngi may jàmbat mi ngi may jàmbat ku fa wéttali kon soxna Oumy Mbacke Mbampana moomu ak soxna xarim yi bokk sëñ Basiiru yaari waajur di waajur sëñ Muntaxa ñoo bokk te dëkk bu ñuy wax Mbampana kon mbokk yi xam naa ñu dugg ci tem bi thème bi mooy euh, taxawaayu mbokk ci mbokkam maanaam taxaw mbokkam ban nañ ci indi ay exemple yu baree bari waaye tey dañ ciy joxe benn exemple ndax exemple bu mat a joxe la te histoire la rawat na ci yoonu murit euh, ca démb amoon na sa mbokk takk ab xare du la ko yëgal sax da ngay xam ne yéen a bokk dara rek nga takk tàggu say soxna jël ñi nga am ci ay doom ànd ak ñoom dem jàppale sa mbokk ci xare boobu loolu am na ba tàyyi ci démb sa mbokk nekk ci ay jafe-jafe nga xam ni sa mbokk la du la ko yëgal waaye xëy na rus na la ko wax yow it nga taxaw taxawaayu mbokk ba mu xam ne yow mii taxaw nga ko te taxaw gi nga ko taxaw taxawaayu mbokk la exemple bi ñu ciy joxe dañuy wax ne 14 18 muy guerre 14 18 xam ngeen ni ay soldats jóge woon na fii ci ku tedd ki dem xeexi 14 loolu it euh, xam naa loolu dama koy bàyyi ak sëñ Moustapha Jaxate xaadimul xaddim ndax dafa dañoo wax am ñu wax ni bi tubaab bi ñëwee di laaj soldats yooyu. di ko laaj sëriñ bi sëriñ bi moom wuyuwu leen waaye maam Thierno Ibrahima Fati moo wax ak ñoom ba joxewoon ci junni wala téeméeri soldaar waaye nag kiñ ci tànn nga xamante ni daa taxaw daa taxawoon taxawaayu mbokkam kooku mooy Cheikh Yaba Diop ndax dañoo wax ni Cheikh Mouhamadul Moustapha di taw sëñ Tuubaa moo volontaire jaay ñu réer gi jënde ko ak taalibe bëggoon a dem ca guerre ba waaye nag ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Yaba Diop di doomi ndeyaayi sëñ Moustapha ndax xari xarimaam seen maam bañ ko joxee amul ndaag jaane xam ne amul ndaag jaane mu kokki la dëkk jóob la sant bu da ca am benn doom muy xarimaam képp muy yaaba képp yaaba nag moo jur seex yaaba ginnaaw bi xarimaam ñu jox ko tafsir maxtaar bintaloo mu am ci soxna amintaloo aminta faal kon seex yaaba mii may bëgg a waxtaanee ak taxawaayu mbokk ba mu taxaw woon mbokkam seex Mamadou Moustapha doomi di yaay seex Mamadou Moustapha la ndax baayam yaaba ak Aminta xarimaam mi waajur sëñ Mourou Faak sëñ Baara ñoo bokk benn ndey muy xarimaam wax ni ba xibaar bu jibee Cheikh Moustapha bëgg a dem Cheikh Yaba daa téye ci loxoom ñu ko regg naam tan fees naa buntu fital xam ngeen mbokk loolu lu muy tekki mooy ragalu ma dee fees naa buntu fital mooy su ma su ma su ma fital diiree mën na maa dal ma faatu. regg na am tan tamit mooy bu ñu ma sànnee ci àll bi wala ñu sol ma loolu maanaam waxi gar mi la woon fees naa buntu firal regg na am tan ñi mën a dee kon cheikh cheikh yaabu moomu moo demaloon ki nga xamante ni moom mooy cheikh Mouhamadul Moustapha fi nga xamante ni moom mooy ca guerre ba yaaba nag ak ku ñu wax xarimaam mu ndaw ñooñ ñoo bokk ndey ak baay waaye xarimaam mu ndaw tamit dañ ko joxaat cheikh Mouhamadul Moustapha kon moom it dañoo jëlaat doomi ndijaayam joxaat ko Cheikh Mouhamadou Moustapha muy mu am ci sëriñ Aliou muy waajur sëriñ Cheikh Aliou ak sëriñ Axma ak ku ñu wax sëriñ kon Cheikh Yaaba xërimaam mu ndaw mu bokkal ndey ak baay xam ne ñu ko tuddee xërimaam mu mag mi yaayam ñoo bokk ak baay muy xërimaam ak Cheikh Yaaba mooy waajuru sëriñ Aliou ak sëriñ Abdou Salaam ak sëriñ Ahmad Tindodi Seex Yaaba nag mi ngi bokk ci néeg bi ñu tuddee ay geet bokk ak sëñ Modou Awa Balla yaayam yàlla maam jëng ak kuma ñun maam jëng a bokk ndey la ak kuma ñun maam jëng kuma ñun maam jëng moo jur aw mooy waajur aw balla kuma ñuul muy waajur sëñ Modou Awa Balla ak sëñ Seex Awa Balla ak sëriñ dëkk aw Balla ak soxna faati aw Balla yàlla maam jàng moom bokkal ndey ak baay nag moom lañu joxoon ki nga xamante ni moom moo di euh, moo moo jur seex yaaba jóob moom lañ joxoon yaaba moo am ci seex yaaba jóob kon seex yaaba mi ngi bokk ci néegub gett bokkoon ñu bare bare bare na kii ci ci réew mi bu ci duggee du émission du du xaaj di nuyu ay njabootam nag sëñ Ahmadou mi nga xamante ni mooy sëñ Ahmadou seex yaaba ñu koy jaare bu baax a baax nga xamante ni moom lañu dénk sëriñ soxna nday Mbàkke moom sëriñ Cheikh Gaynde Fatma ñu naa soxna nday say ndaama ñu koy bu baax a baax kon da gis taxawaay bi nga xamante ni Cheikh Yaaba Diop taxawu na ko Cheikh Mouhamadul Moustapha mën nañoo wax taxawaay diggante taalibe bi ak sëriñam waaye bu ñu neexee tamit wax taxawaayu diggante sëriñ mbokk ak mbokkam muy loo xamante ni lu am solo la mbokk maanaam mbokk taxaw mbokk dafa am góor gu baax góor gu géwél maa ngi koy nuyu baax a baax day dafa wax wax ju am solo barki démb ci moom fu ma dajeeg moom mu ne soo rayee ab ab naar wax dañu soo rayee ak naat yaa ñépp a koy bokk waaye soo rayee ab naar yaa ak say bokk rek koy bokk suñu alsaan loolu olof yu xóot la waaye yu leer la nee na soo rayee ak naat ray ak naat moom mbokk yi <laughs> jàmm la ndax ak naat moom boo ko rayee moom bu la neexee da koy togg woo say bokk jàmm la waaye boo rayee ab naar moom du jàmm nee na yow doo koy bokk yaa say bokk koy bokk maanaam li mu bëgg a wax ni mooy féeg yaa ngi am jàmm rek mën nga ànd ak ku nekk waaye boo nekkee ci fitna rek wala nga jaaxle wala ña la nga nekkal jaaxle dañ naan nañ wooy ay bokkam moo tax mu ni soo rayee ak naat yaag a koy bokk waaye boo rayee ab naar nag ah, nee na yàgg say bokk rek koy bokk kon mbokk mbokk lu am solo la waaye tamit mbokk daa war a taxaw taxaw mbokkam waaw mbokk daa dam na ñu bari sax géwél dañ ko dañ naan deretay garde moroom ja euh, fii ne boo xoolee ci suñu kilifa yii nga xamante ni ñoom lañ yaakaar kii sës ci ñoom nii sës ci ñoom ñu koy tuddee bëkk néeg wala waxtandoo wala sës ci ñoom rek du doon ab jàmbur moom moom boo xoolee ba ci biir rek moom am na lu leen boole loolu nag lu am solo la ndax dafa am loo xam ne mbokk rek moo ko mënal mbokk waaw loolu loolu lu am solo la day wane ni mbokk ay ay ay bokk dañ dañoo war a ànd ay bokk euh, dañoo war a ànd léegi nag néegub geet boobu mu dugg léegi ndax damaa wax léegi yàlla maam jëng ak kumañeen maam jëng ndax dañuy wax ne absa ak bale ak joojo ñooñu awa demba warax mbooñ bi leen jur ak maam jëng warax mbóoj ak faati bàllaa bokk ndey ak baay kon yàlla maam Dieng mi maam Dieng warax mbooj mi ko jur ak Faati Balla warax mbooj ak Awa Demba warax mbooj bokk ndey ak baay ñooñu mooy néegu géet bi sotoo ci Absa ak Bale ak joojo Awa Demba warax mbooj maam Dieng warax mbooj Faati Balla warax mbooj Balla Baraan maam Dieng Daam Senaba ba Daam Baraan Awa Sarr Omar Daam Balla Baraan maam Dieng Daam Senaba Baraan loolu lañ sant. waaw mooy muy Awa Dem Warax Mbodj ak maam Dieng Warax Mbodj ak Fatou Balla am na yaakaar naa émission yi ma ko waxoon dañu wax nag ab geet bu màggee yabeel dañ kon Cheikh Yaba Diop jëf jii mu jëfoon ci ci ci ci ci ci ci ci ki nga xamante ni moom moo di Cheikh Mamadou Moustapha jëf ju am solo la Cheikh Yaba nag euh, moo ko ñu wax màggat Yaba ñoo bokk baay Yaba leen jur Yaba am na doom ñu ñuy wax màggat Yaba. màggat yaaba nag dañ ko joxoon sëñ baara mu am soxna daba mbàkke doomi sëñ baara la yaakaar naa ñi ko mag ci axlu mbàkke bariwut mu ngi fii marché Ocass di dund di dégg li may wax waaw muy soxna màggat joxoon sëñ baara doom jëm amul moom muy soxna daba mbàkke euh, yaay nay Mariam ak ñu ko bokkal ñëpp mu ngi fii ci marché Ocass euh, mag la lool yal yàlla gën a ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla gën a guddal fanam gën koo gën koo gën koo wéral seex yaaba nag ba mu defee jëf ju jooju nag ci taxaw gu mbokk taxaw mbokkam Cheikh Modou Moustapha da koo digal mu dem Kayal ndax booba lañ doon tànn li ñuy wax ay chef de canton moom Cheikh Moustapha tànn ko mu nekk chef de kanton bu Kayal waaw mu nekk chef de canton bu Kayal moo tax sax ñu bari naan Cheikh Yaaba borom Kayal cosaanam dëgg-dëgg nag mooy kër Yaaba kër Yaaba kër Yaaba nag boo fa demee mi ngi fi soriwul dara ñoom it dëkk la bu am histoire dëkk la bu am ay nit ñu baax. kon ñu ngi jaaree waa kër Yaaba gépp di nuyu Mamadou Diop Decroix moom mu nga xamante ni foofu la cosaanoo Cheikh Yaab bi ñuy waxtaanee moo ko yar moo ko def lépp moo ko defal lépp mbokk du du looy wax rek ni diw sama mbokk rek yem ci danga ko war di jàppale ci ci sa kemt lay kàttan ci noo ko mënee rek ak noo ko mën a dimbalee rek nga di ko jàppale bu dee xel mu rafeta bu dee bu dee bu dee doolee ci ci doolee ci nii bu dee doolee alal wala doole lu mu mën doon rek sa mbokk la nga di ko jàppale te yàlla tax nga di ñëw jàppale nga mbokk kon mbokk day taxaw mbokk bu ñu delloo ca démb wax naa leen ko daana am daa nga gis ñu takk ab xare ba waaji dem ci xare ba nga jékki-jékki gis ñoo xam ne yëgaloo leen ko waaye deret ji daw ci yow mooy daw ci war ñu ñëw di la jàppale ndax ndax ndax mbokk mbokk ngeen mbokk loole nag war nañ koy sàmm ba jamono jii ñuy wax ak yéen nga xamante ni ñu baree bari dañuy gëmloo nit ñi ni ndax dañ koy wax boo dee rey say noonu say mbokk yi gën a jëkk a jeex bu mbokk baaxoon ndox du togg jën yooyu yëpp ay waxi wolof la rek waaye mbokk amul lu ko gën nit mbokkam làkkat ni nedd ko bandu nedd ko bandu maanaam nit mooy mbokkam kon mbokk lu am solo la waaye nag xawaayu mbokk ci mbokkit lu am solo la fexe bu mbokk mi nga bokkal nga am loo ko am foo féete waaye am loo koy jariñ am loo koy jàppale am loo koy am am loo koy téye Cheikh Yaba mi defoon lii ne bi muy def lii tamit euh, njaareem la xewe woon 1914 muy euh, guerre bi di 14 18 wax nañ ni sëñ Fallou Fall. moom it doomi maam Cheikh Ibrahima Fall la demoon na ca guerre ba ak ñu baree baree baree bari waaye tamit ak ña nga xamante ni maam maam Thierno Ibra Faty tànnoon na leen ñoom ñu baree baree bari dañoo laxasaayu am na ñu jot a bind xëy na gëstu bi moo moo moo moo moo yeggagul waaye am na ñoo xamante ni seeni maam ba Cheikh parce que volontaire la woon ndax euh, Cheikh dañoo wax ni maam. Euh, képp koo xamante ne pare nga pour dem maanaam da ngay jékki-jékki du duñ woo duñ la force yow yaa ngi bëgg na dem loolu nag bari nañ bari am na am na ñu ci jotoon am na ñu jot a xam waaye Cheikh Yabou mii boo gisee ni jël ko ñu bari dañoo jàpp ne rek da ko def rek ngir taalibu Cheikh Mamadou Moustapha ndax am na ñoo xam ne sax ginnaaw bi sëñ Basiru mooy sëriñam waaye la taxoon mu def ko mooy dara ji muy xarimaam moomee xarimaam kenn rek la moo jur Yaaba xarimaam xarimaam moo jur Yaaba xarimaam moo jur Cheikh Yaba Euh, xarimaam moo jur aminta xarimaam moo jur sëñ Modou Fall moo tax barki démb bi ma gisee sëriñ Cheikh Aliou ànd ak Baye Ahmadou Cheikh Yaaba ma ne ah ma ne ko Mbàkke li war naa mën a nekk ndax amul Cheikh Yaaba mi ak sëñ Aliou doomu bàjjen ak doomu nijaay lañ la ak doomu amul Cheikh Yaaba mi ko jur ak xarimaam mi jur sëñ Aliou ñoo bokk ndey ak baay kon mbokk yi man su ma gisee ay bokk yi ànd wala boog di ànd ci di di di waxtaan di diisoo di yëkk wala nit koo xam ne lu mu def rek ci ay bokkam loolu dafa may neex lool mbokk yi nit mënut a am lu dul bokkam ay mbokkam nit mënut a mënut a gën ay bokkam mënut a ëpp la ay mënut a mënut génn mën naa gën ay bokkam waaye mun leen a génn mën naa ëpp la ay bokkam waaye mun leen ëpp mën na leen a mën waaye mun leen a ëpp mën na leen a gën mën na leen mën na leen a gën waaye mun leen a génn mën na leen a ëppale waaye mun leen a ëpp mën na leen a raw waaye bu leen néewul aw doxinam bu leen newul aw doxinam du rafet kon nit day war a fonk mbokkam waaye di ko dimbali dañuy wax ni xarimaam dañ koo jox amoon ndaag jaane moo am ci yaaba képp soo ko ñu si tafsir maxtaar bintuloo moom moo doon mbay tooj am ci ñaari aminta waaye jàpp leen ñaari aminta yooyu tamit menn aminta ma moo ju soxna Mariama Sëy soxna Mariama Sëy moo ju suñ sëriñ Abdou Karim moom sëñ Fàllu bàyyi sëñ Seex Colle waaw ah, soxna Mariama Sëy mooy waajuru sëriñ Abdul Karim mu mag ma maanaam soxna Mariama Sëy dañ koo jox sëñ Fàllu mu am ci sëriñ Abdul Karim mu mag ma moom sëñ Fàllu ak mbokk ak mbokk nag dañuy wax ni bari na ci lu koy dundal tuddante doom jël soxna ak bàyyilante ay doom dañuy dañuy wax ni soo ko defu ci ak mbokk bu mbokk tase yaa ko tas xoolal suñu kilifa yi fii ne soxna Mariam taaw sëñ Moussa xam nga ku ñu ko tuddee ñu ngi ko tuddee soxna Mariama Kunta mi bokk sëñ Fallou ndey ak baay xëy na sax loolu ñu bari xamuñu ko nga gis ñoom li ñu daan seen seen biir waaw soxna Mariam mi taaw sëñ Moussa bu jigéen ñu ngi ko tuddee soxna Mariam mi bokk ak sëñ Fallou ndey ak baay ñu naan galas bàyyi mbeen galas euh, galas bàyyi mbeen càmmeñal Mariama Kunta dañu dañoo sono Mariam rek naan kee Mariam waaye moom lañ ko tudde waaw sëñ sëñ Mor Moussa ab taawam sëñ Fallou ji mbokkal ndey ak bàyyi la ko tudde soxna Mariama Kunta waaw soxna Mariama Kunta moom nag dañ koo joxoon ku ñuy wax sëriñ Maxtaar Silla sëñ ma Sayer Silla sëñ ma Sayer Silla lañ ko joxoon sëñ ma Sayer Silla moomee nag soxna Asu Mbàkke mi ko jur sëñ Mbàkke Mor Ansalee ko jur bañ ko ko joxee nag mu am sëñ Maxtaar Silla ak soxna Mbenn soxna mbenn ñu jox ko sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ba tey moom soxna maam Fatou Dendeye mii loolu lépp mbokk yi pour wal leen ni tamit xëy na ñun amuñu ay référence yu gën référence yi muy sëñ Tuubaa ki waa këram te boo xoolee ni ñu doxalee ci seen biir rek xam ne ñoom it ñu fonk mbokk lañ ñu téye ak mbokk lañ waaye nag mbokk mbokk yi bul ni diw sama mbokk lay am ci mbokk lay taxaw mbokkam kon alsaan tey waxtu wi lii rek lañu may ñu indi ko bu ëllëgee dina gën a yaatu ci waxtaane ak mbokk waaye gën a leeral gone yi ci li ñuy dégg léeg-léeg ci duñ xam fu muy jógee wala nangam ak nangam di ko dégg nii rek jar nañu ne moo tax ñu leeral leen ndax lii ma ki nga tudd lekk xew na léegi xew na bu baax a baax xam naa kuy suivre euh, Facebook bi yooyu di nga gis gone yi di ko fawantoo muy Amari Ngoone Aram Mbaay ji ñaax loolu li ma gën ko cee leeral rek Amari Ngoone Aram Mbaay santul Mbaay Euh, arambaay ndeyam maanaam ngóone ngóone ko jur ngóone faal mi ko jur arambaay ko jur moo tax ñu naan ëmëri ngóone arambaay moom faal la sant dama daal di may si jëloo ko jur mi rayoon ràmba euh, ray ma euh, jooju njaay ci diggante paal ak góofoo loolu histoire la moom nag mi ngi faatu ci xeex bi nga xamante ni moo xeex moo doxal diggante la Joor ak Maajo yi dëggan kott xeex boobu daa métti woon ci ñi sant Faal trop mooy la bataille de de de de Ndande muy pind bi ci Kalom teen bi gën a ëpp bi bi bi gën a rëy ci Sénégal foofu la nekk dañuy wax ni teen bi largeur bi ne mën na seen mètre maalaw fas Lat tëb na ko ñaari yoon li muy li muy li teen bi gudd gudd maalaw wadd na ko muy xare bi mu métti woon lool ci ñi sant Fall Amari Ngoone Aram Mbaay moom foofu la faatoo foofu la faatoo kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm. loolu lañ leen indiloon ci ki nga xamante ni moom moo di Cheikh bu Diop mu demaloon Cheikh Mamadou Moustapha ci guerre ba wax na leen li mu bokk ak moom li mu bokk ak moom Cheikh bu Diop tamit moo jur Samba Yàlla moo jur Samba Yàlla Samba Yàlla lañ joxoon soxna Bintu Dan moom sëñ Dan xariloo mu am ci soxna Amsatou Diop directrice bu Ecobank bii moom it référence la am sutu maa ngi ko nuyu baax baax. diirub li fi sëriñ Sidi Mokhtar xalif général kulu murit di nekk kont yoonu murit moo ko yoroon euh, liggéeyam bu rafet ak na mu ko yore woon tax ba seex euh, Sidi Mokhtar bëkki moom ba yóbbu ko màkk kon moom it mi ngi fi waaye nag référence la ndax jigéen la ñu dénk la xaalis bu toll noonu te ñu bari xamuñu ko ba nga liggéey ci liggéey bu mel noonu ba borom bëkki noonu ba te dara réer kon am satu ñu lay nuyu baax a baax a baax soxna benn dan mi waajuram soxna bintu dan mi ko jur dan suñ dan xariloo mi ko jur ndax dañuy wax ne suñ dan xariloo la soxna umi mbàkki xariloo soxna faati mbàkki xariloo ak soxna muslim mbàkki xariloo ñi ñoo bokk ndey ak baay doomi suñ mënum faa lañ xariloo mi leen jur ma du sëy ba ko jur Ablaay Faa bint sëy ko jokkumba sëy ko jokkumba nag ñu bari dañuy wax ci histoire yi ñu sant loo te duñ ko tudd wala boog duñ tudd ay doomam waaye daa a faatu te benn doom la muy may Modou Sayib Modou Sayib moo jur Ablaye Fa Binta Ablaye Fa bint moo jur xariloo xariloo moom lañ jox sëñ Moodu Mustafaa mu am ci sëñ doon xariloo soxna Ummi Mbàkke xariloo soxna Faati xariloo ak soxna Musli xariloo seen sët mun ma ko tudd bu ma duggee ci tudd leen damay damay am problème xanaa sëñ Jili rek sëñ Amar Fall moom soxna Musli moom soxna Faati xariloo ak sëñ Seexuna ñoom ñëpp maa ngi leen baax a baax ak mboolem njabootu euh, ñu ma tudd léegi ñu ngi ziare ñëpp di sant ñëpp di leen jox dig daje incha allahu rabbi beneen jotaay ci seen émission bu mag bi ñu tuddee Sénégal démb di leen sant sëriñ Alsane Sané mi nga xamante ni moom lañ jàkkaaroon ci wàllu caméra bi di sant tamit sëñ Or mi ci wetam di ñaanal sëriñ Moussa Diakhaté xaadimul xadim yal yàlla guddal fanam ba yéene ju am ci liggéey sëriñ Tuubaa mu def ci lu kawe njort ñëpp seen mbokk la seen xarit Maxtaar Umi Wursilatu Rahim jërë ngeen jëf